ba euh, foofulee si euh, tribunal bu Ziguinchor sud décidé rek euh, annuler li nga xamné mo nek Ousmane Sonko mi nga xamné ne dañ koo ràjjee woon rek si yile liste électorale boobule nak juge nak ñu muy ooyee le juge Sabali moo joxe boobule dogal mais dafa melni ni comme agent judiciaire de l'état bi d'accord d'accordun ben yoon ak li nga xamné ne juge dogal nako mom dafa japp né sax bile jugement si nous ko amalé amul benn ak li nga ne euh, euh, euh, wala conformément si décision de justice UMS aussi communiqué di artu ki nga judiciaire de l'État pour xamal ko rek amul benn yoon yëkëti ay négatif si kaw ki nga le juge Sabali. gis né sax si ay politiciens rek dañoo féetoo euh, si ñi nga xam ne mooy euh, Benno Bokk Yaakaar di xalab euh, ki nga xam ne le juge Sabali mu mel comme bras de fer bi dox diggante Ousmane Sonko ak le régime du président de la République Macky Sall benn feuilleton sans fin la passe ah xam opposant bu fi attaquer juge xoli ñu ne la outrage yóbbu la dama xamul nag agent agent judiciaire moom ndax dafa mel ni ku wala dafa def ko neex mais il benn bokk yaakaar boo ànd ak ñoom da ngay bëri da ngay wóolu sa bopp. Mm. malheureusement. Mm. mais une chose est certaine Sabasi Faye. Sabali. Sabasi va Faye. Faye Faye biir moo la moo la moo la doomi séeréer bi xam nga séeréer diñ. ñoom séeréer. waa déglu ma wax la aw moo li doomi jàngalekat ba bi mu ñàkk yaa trois ans yàlla na ko yàlla yërëm ala directeur d'école ba mag foofu ca siba soor mm. xulil jullite ragal yàlla ci jamono Pape Toba ma wax de ne ma Baye Assane ñépp euh, am alama xarit noo bëri am di jàmm waa yow xulil te nag wuy ma <laughs> wuy ma lépp wax daanu def effort ba bu bu nu ko nit waxee su dee la baax nu wax si te mm. bu nu kaa wax daanu cité diw ne nit ko baax kooku moo nu ko xamal. parce que mm-hmm. noonu xamuñu dañ ñuy jox rek ñuy wax. xule mm. décision bu baax boobu mu jëloon. ba muy mm. jugé Abdoul mbay sa réputation ak kaw Kaolack. Mm. Sabasy Faye loolu la. maanaam kii da xam lu moo bañ comme ni ñu ko waxee woon ma madame Diop Guèye. la procureur général ba ñu waxoon. dafa am loo xam ni jàpp jàpp naa ni ci Sénégal ñi baax ñoo ëpp. jàpp naa ne APR ña fa baax ñoo ëpp. Mm. jàpp naa ni magistrature ña fa baax ñoo ëpp. naa ne enseignement ña fa baax jàpp naa ne santé ña fa baax ñoo ëpp waaye dina am toujours ay brebis galeuses. Mm. ay troubadours yoo xam ne ñoom ñooy yàqal ñëpp. Mm-hmm. dégg nga wax bi. tey Sénégal am na fi ñoo xam ni wuy ma seen fii xoolil ba baax bee see daw. ba baax bi laa la wax wayul. nekul ba waye di bu baax nit ni njàpp nit nit sa moroomu nit am papa am yaay nga am papa am yaay mu ne la defal lu bon xulil mm. defal li yow nga xol xamni li la def lo du deug du yoon mais nga def ko pour des intérêts mm. pour on ne sait quoi pour ay privilèges ay prébande je ne pense pas et je dis pas que keneen non la defee waye dama ne baxna nit bo tollee fenn xamni li deug la nga wax ko

bu ñu xoolee xam ni yoon la dañ naan Ousmane Sonko kenn waru ko raji. jàpp nga ne Ousmane Sonko ak euh, fi nga xam ne jaar na ko état bi ñu dissoudre parti. man man man dama yàgg gëm ne. yaakaar nga ni gars yi. dinañ ko non dama yàgg gëm ne ils feront tout ils feront tout pour la bloquer. ah waaw loolu la ma gëm waaye nag nee naa la toog naa fi ne la.

non j'ai pas d'avis euh, par rapport à oui je sais loolu loolu madame, à 13 h il a véhiculé l'info sur son tweet etc mais justement ça ne m'intéresse pas non non non ça ne m'intéresse pas Je n'ai pas d'avis là-dessus ça ne m'intéresse pas Lui, c'est le Sénégal et les Sénégalais dans leur grande majorité on a beaucoup de respect pour lui xam nga un mm. principe on a de l'égard à l'endroit de tout le monde mm. mais par principe aussi on se veut libre et de façon libre et si délibéré, Holly. I don't care. <laughs> Personne, je pense qu'on a fait le tour hein, de l'actualité de la semaine voilà ça a été un plaisir partager partager au plateau comme nous l'avons fait chaque samedi. Euh, voilà. c'est toi le chef euh, et il faut dire aux téléspectateurs qu'on a une autre grande production pour T3B Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah, inshallah, au rabi. wax ko T T3B SNF1.